beneen bi mooy le droit de vote on a eu plusieurs scrutins présidentielle 2019 mi euh, opposition bi jàpp ne ne dañoo sal falfàñe le le droit de vote il y a eu l'épisode des listes aux élections locales aux élections législatives incident yooyu da koy dugal euh, ci piétinement wu droit de vote bi wala. droit de vote piétité yow bu fekkee ni déjà processus électoral bi doxul yoon sa boo seetee processus électoral bi mi commencé d'abord ci fichier électoral bi fichier électoral bi normalement parti politique yépp waroon nañ ci jot transparence la war doon yéen a ngi jëm compétition yéen a bokk compétition bi yéen ñëpp kuy war a jot or kenn rek moo koy jot mooy le parti au pouvoir. ministre de l'intérieur ak le parti au ah, ah, ñoom seen biir ñoo ko bokk ñoom rek ñoo koy jot sa compétition la mais kenn kuy compétir moo koy jot ñi ci des duñ ko jot. xamuñu lu nekk ci fichier électoral ñoom ñoo ko xam ñaareel bi bu ñu demee ba élection dinga gis ni am na loo xam ni dugg na ci ndax ñoo xam ni yore nañ seen carte électorale inscrire normalement di wër sa xamuñu fu ñu war a wote gis ko ba tàyyi fi ndax ñooñu identifier nañ leen comme électeur de l'opposition jéem a réeral seen inscription donc ñooñu dindi lañ leen droit de vote pendant ce ñoo xam ni waruñu woote mbaa bu ñuy woote itam benn yoon lañu war a woote dinañ ne woote ñu warul woote koo xam ni benn yoon nga war a woto di nga woto ñaari yoon. vote multiple amati na Sénégal ba tey avec l'encre indélébile la. du gis nga ki mujj wone ay carte mi ñu ko indil carte électorale wone na ko dañ defe ne woon moom APR la ñu indil ko ay carte électorale ñaari AP carte électorale boo xam ni ay bureau de vote différent lañ ko indil kon nag fii ci Sénégal du ma ni droit de vote amul mais niñ koy jaxase tax na suffrage bi ni muy exprimer woo ba nga xam ni li war a nekk sa vote nekk sa vote ku nekk ci Sénégal loolu moo amul ce qui fait que dañuy détourner suffrage des électeurs sa loolu nguur gi ci la dëkk ci élection bu nekk